وعن شرار الخلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا عمدت من يحشمني من ضرر من كل شيطان وجن وبصر واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرة نوير وقلبي أرشدا السلام عليكم ودار سيفا سدور نونغلي مورنجا لا سين توتانغ سين رك سين خريط سين جربار سين دوم سين تايبي مولي نوي لين شيار دي نيان سوني كاد جي جام jël nuyoo bi ak siyaar bi teg ko ci loxo sëñ Modou Thiaré mu teg ko ci loxo mbokki góor yàlla yëpp jël nuyoo bi soxna yi teg ko ci loxo soxna maam Jërë Géey Taysiir mu teg ñu ko ci loxo mbokki soxna yëpp di ñaanal Cheikh Mountakha Al Bachir bi dëbb ak kàttan wéral ko di ñaanal way daw bi wàccee yërmaani seen xam ne rek xëy si na tàbbis ci biir ba ci ñin mujj a fekk ci bunt bi ñoo leen di siyaar baax di balu àq ñëpp tey bal àq ñëpp tey ñëw ak waxtaan bi ñu daan def te muy jëm ci lu soxal mbirum daayira ak fédération incha allah mbokk yi bu mel ne daayira dafa mel ne daj na kàpp jamono te li ëpp ci ñi koy def am nañ pëstéef ak bëgg liggéey sëriñ bi waaye jëmmee ni doxiinu daayira dafa bari ñoo xam ne dafa mel ne xamuñ ci dara te daayira xam-xam la ay sart moo ko lal ndax dafa am statut am règlement intérieur te nit ki nag lu mu xamul dëgg mën na cee bañ a jëriñ ndax sunu borom sax wax ne taxrifoo nii xabla an taxbudoo nii fa in lam taxrifoo nii fa kay fa taxbudoo nii ni ngeen xam njëkk ngeen di jaamu kon xam dafay jëriñ dafay jëriñ nit lu bari Sëriñ Tuubaa sa dem ba wax ne naw mi xibaadu rabbil laa sarika loo xal bi yu daabiran ayan turisul ikama daayira ci naka lay sosoo ginnaaw ba mu nekkee ab kuréel daayira munta mat munta sosoo lu feek dañoo mat vingt cinq personnes vingt cinq personnes ci la daayira di jógee jëm kaw jëm kaw gi nag amut limite waaye daayira su fekkente ne motut ñaar fukki nit ak juróom motuñu ab daayira ñaar fukki nit ak juróom yooyu su fekkente ne ñëpp ay góor lañ mën na noo sosob daayira su fekkee ñëpp ay jigéen lañ mën na ñoo sos ab daayira su fekkente ne góor ak jigéen lañ ci vingt cinq yooyu mat nañoo euh, sos li nga xam moom mooy ab daayira kon vingt cinq personnes lañ. mbokk yi ñoo ngi jégalu ci dog-dog boobu daayira nag mën naa nekk daayira mix mix mooy daayira boole góor ak ay jigéen mën naa nekk daayira boo xam ne ouvrier kese lay lay lay boole ci règlement intérieur bi nag bu leen neexee semaine bu nekk ñu dajee benn yoon. ajuma ba ajuma dimanche ba dimanche ñooy seet bis bu leen neex bu leen neexee quinze jours yi nekk benn yoon bu leen neexee nekk benn yoon bu leen neexee at mu nekk benn yoon kooku moom daayira bi mooy seet ni mu ko jekko waaye biro bi nga xam ne ñoom ñooy doxal daayira bi muy biro bi nga xam ne mooy bureau bi ci daayira bi gën gaa neew ñetti weer yu nekk war nañoo dajee xool ba xam liggéey bi fu mu toll jéem wut ay programme teg ko ci kanam jéem koo doxal muy par exemple Sivas Dóor ñi maanaam seen bureau boobu trois mois nekk war nañ daje ñi nekk Dakar trois mois yi nekk war nañ jéem a daje def ay waxtaan xool luy suqal liggéey bi loolu nag bokkul ak ah, ndajeem fédération bi kon daayira mën naa boole ouvrier kese mën naa boole ay jigéen kese mën naa boole ay jigéen ak ay góor moo tax ngay dégg ñaa wilaaye femme wilaaye jeune wilaaye adelte femme mooy ñi nga xam ci ne seen 40 ans teg na jëm kaw jàpp 45 ans amee ay borom kër adulte mooy ñi nga si ne seen 45 euh, ans jëm kaw moom mooy adulte jeune nag mooy lu commencé 18 euh, ans jëm ba 40 ans loolu moom mooy loolu mooy jeune jeune nag waa jeune rek la concerné képp ku bokkul jeune doo bokk daayira jeune femme am na adulte am na adulte mooy ansu 45 ans jëm kaw. fédération nag nan mooy tax ak fédération mën a doon ak fédération ñaar daayira lay boot fédération dañuy wax ne ñaar fukki daayira jëm kaw ndax dañuy wax ne sous section mooy lu mat juróomi daayira yu ndaw dañuy aju ci ab section juróomi daayira ngay boole mu nekk ab sous section nga boole lu mat fukki daayira mu nekk ab section bu matee fukki daayira jëm ñaar fukki nekk ab fédération loolu nag boo ko waxee ba pare Sifaas Dóor nekk fédération dana jaaxal ñu bëree bëri mooy Sifaas Dóor ni mu tëddee ak ni mu bindoo membre yi mun ñu dajee benn gox moo tax ñu jël euh, région bu ne lañ fa am ñu def ko muy ab section tey ñaan yàlla mu màgg nag lu fa juddu rek day aju ca loola. tey par exemple suñ demoon ba Touba gi am ñeneen ñu ne par exemple lu mel ne Saam Jaxate nga xam ne dafa sori duñ mën a ñëw kër sëñ Touba gi lu bari ñu ëpp fa vingt cinq personnes dañ fay def ab daaira niki noonu bu amee ñu nekk ko tey. Euh, Eh, ndindi ca kaw noonu waaye ñoom ñëpp dañuy aju ci bi nekk Touba bu nekkoon dakaar it waxoon naa ko keroog eh, Tëngéej am ñu fa nekk am ñu nekk parcelle ñoom dañuy aju ci bi nekk dakaar loolu na la ñuy boole def ko fédération Kaolack noonu eh, Diourbel noonu Thiès noonu waaye comme loolu amagul nag moo tax ñu def ko leen si moom mooy ab fédération fédération nag bépp daayira bu ci bokk day dox ci ndigali fédération bi mu neex ko ak mu naqari ko ndax ci la ndigal yi waddee ci fédération bi di jóge ci bureau fédéral ba wala conseil fédéral nuñ ko mën a tuddee dañ ko war di appliquer ci daayira yi ñu nekk waaye nag secrétaire général yi nañuy jàlle li nga xam moom mooy procès verbal yi di jàlle compte rendu yi di jàlle rapport yi ngir membre yi nga xam si ne Euh, du ñu nekk ñu ay membre actif nekk ñu ay membre fédéraux fu liggéey bi toll ñu mën ko xam kon boo tewee bureau fédéral lañ fay tënk boo ñëwee ci réunion fédérale bi ngeen di amal foo ngeen ko mën a amale na nga ko leeral membre yi ñu xam lañ fa tënkoon su fekkante ne assemblée générale dafa jàll it rapport dafay jàll nañ ko copier jox ko secrétaire général ñu leeral dërëm par dërëm bi jar xorom bi jar kaani bi jar poobar lu mu ci mën a doon am nañ un lii lañ ko financé dërëm par dërëm mooy tax nit ki mu sawar ndax Cheikh Modou Moustapha Al Karim daa waxoon laaj leen nit ñi luñ man te yéen koy def fu nu xam te leen koy leeral daayira na am na ñu tuddee membre actif am membre associé am membre danoor membre danoor nag leer nañ ko am na yaakaar naa suma jumoon koo xam ne doomi sëñ Muntaxa la bokk na ci liggéey bi kooku ne xam ne ne mënula cinq bu jot muy teew waaye nag su daggul carte membre si fas dóor doondu am membre su fekkee ñun dañoo bëgg lu ñu neex rek gis ne moom bokk na ni boole ko suñu biir rek ca daggul carte membre bi daayira moom ak koo mën a doon boo nekkoon doomi xalifa général sax te dëggoo carte bi bokkoo ab carte yi tax moom nga man cee bokk ak bokk du la ci boole léegi nag kilifa nga dagg nga carte bi mënoo di teew ñooñu mooy membre d'honneur moom leen dara jaale mbooloo mi waaye dañuy dagg carte di joxe cotisation ba pare di joxe seen xalaat ci liggéey bi am na lu ñu tuddee membre actif mooy ki bindu jënd ab carte ba pare yenn ci poste yi mu yor ci benn di ko doxal ñooñu lañ tuddee ay membre actif am na lañ tuddee ay membre associé mooy ñoo xam ne fédération bii ngeen def ñoom bokkuñu ngir lool ndax bokk nañ yeneen fédération waaye dañoo gis ci seeni i objectif seen ëdëf ngeen am ay programme yoo xam ne bu ñëwee mën nañ caa liggéey ñu bind ci ngir seen intérêt yi bopp ndax sëñ Cheikh Mbacke daa wax ne boole ma leen ngir bëgg dem ngeen dem àjjana képp damaa bëggoon ngeen jëriñu tey jëriñe tey jëriñante tey dama man safoor laa gis naa ne safaar door bëgg nañ ay tata ma dem dagg carte bind ca xam nga carte membre boo ko jëndee dañuy bind Mor bind turam ak santam yaayam ak baayam groupe sangi bi mu bokk ak profession ndax Baye Baye Abdoul Fatah Gaynde Fatma dafa ñoo waxoon ko fonk di leen ko arrêté léegi bindoon ne Mor Ndiaye moom kon safoor la léegi si wàllu bi ñu jëndee ay tata ñu dem ci seen carnet registre ba ñu xool ah suñ xabaan gay moom kat safoor la. ñu embauché ko subaa moom mi ngi ci liggéey bi ñu ci gis boppam loolu lañ tuddee membre associé waaye membre simple amut dama koy dégg lu bari ñu naan man daal daayira membre simple déedéet membre simple amut képp koo xam dagga kaar di ñëw di teew rek donte yow yoroo benn post membre ak actif mooy kii kii yëngutu di ñëw di teew léegi def na membre de bureau la man ngaa bañ yor poste nag kon ñu xam ne membre actif amut léegi nag su matee vingt cinq membre yan département mooy composé daaira dañuy génne président génne vice président génne président ak ay artiam man ma ko ci man ma ko tënk gàttal ko génne commission éducation et culture mu yor ku yor njàngale mi ak yar mi aada ak cosaan moom it am na ay sous commission yuñ ko war a tas ngir liggéeyam gën a jàll ay sous commission yu bari la am am lu ñu tuddee secrétaire général nga xam ne lépp luy wàllu mbind ci liggéey bi rapport yeeg préso-verbal yi yëpp moom moo koy génnee di coordonner réunion yi même trésorier euh, administratif mën naa coordonner réunion ak ña koy jàppale ñu génnee commission sociale nga xam ne ñooy bind teg yi cotisation yi ñoo ko yor ñoo yor wàllum santé yooyu yu weneen yu bëree bëri seen liggéey xëy na ay jamono des na ko leeral yàgg nañ koo leeral ak. commission yi sous commission yi leen di jàppale commission ak sous commission bokkuñu commission sociale nag mooy képp ku bokk commission biir commission bi sous commission nag mooy tas gin koy tas kenn ku nekk lañ la dénk nga di ko doxal suñu paree nag ñoom commission yi ñu def seen rapport mën koo jébbal secrétaire général kon sous commission ak commission bi bokkut sous commission dañu ci biir commission bi la sous commission mën a juddoo am na lu ñu tuddee administration muy administratif ñoom képp ku dugg ci daayira bi ñooy mën a tax nga mën cee dugg bu la jaayit carte arrêté la mënoo bokk ci daayira bi da ngay jënd carte soo jëndee carte nag ñoom ñoo koy arrêté def Mor Jaay def turam def santam adresse am date de naissance am groupe sanguin bi bokk profession am na lu ñu tuddee carnet registre ay doode sang yépp ñoom ñoo koy organiser ak ñi leen di jàppale am na lu ñu tuddee presse information lépp luy wàllum yëgle wala ay débat yu soxla ci rajo bi démarche yooyu moom moo koy def suñ amee journée culturelle euh, mbokki presse yi fii ñëw ñoo leen di dalal seen mbokki journaliste yi xeet yooyu ak commission ba leen di su ba leen di jàppale ñu tas ko ay sous commission ak li ñuy tuddee commission orga orga mooy organisateur nit ki nag faaw mu xàmmee mu xàmmee organisateur organisation organisme amuñu temps tey ngir leeral ko ñoom ay sous commission yu bari lañ ndax am nañ commission waañ commission hébergement am nañ commission euh, restaurant am nañ commission sécurité am nañ commission basse ak yeneen yeneen ñu tas ko ak ñi leen di jàppale ñoom it benn sous commission la am na lu ñuy wax commission trésorier trésorier moom mën naa bañ a bari ndax trésorier mooy kii denc xaalis bi kookee nag règlement intérieur bi dafa waxoon ne na nekk ku ñëpp xam te wóolu ko te ab bari te xaalis bi ñu ko dénk na sa na ko sa na ko sa na sekki te ñoŋ xaalis bi na sekki te ñoŋ sekki mooy nay jur dara na ñoŋ mooy bu ko dara laal ab tukkeem mu bari na ko ñëpp xam te wóolu ko waaye ab tukkeem bu mu bari am na lu ñu tuddee commissaire au compte mooy ñi xam ñoom ñooy saytu bagage yi saa su ne ñu am droit xool luy dugg ak luy génn su fekkente ne fàttewuma benn tomb ndax waxtaan yi ni ñu koy defee du ñor ay kayit dañuy waxtaanee ci comme li ne suñu xel mbokk yi teewul su fekkente ne fàtte nañ ci département yi nga xam ne ñooy composé daayira bi ba pare ñu leen ñu fàtte nga département sàngam léegi nag ñii. ñu def muy biro yi buñ leen falee seeni commission dañoo war a dajee def seen plan d'action 2018 2019 lii laa bëgg a liggéey ngeen dajee ngeen tënk ko commission bu nekk tënk président bi woote président daan ne lii mooy sama plan d'action si culture ne lii commission bu nekk nag ñu xool sa plan d'action la koy financé ñu defal la ko li ci li nga xam si ne sa xel dañu woon ñu mottali la ko muy li nga indi yow am na ci loo xam ne ëpp na ñu wàññi ko am na ci loo xam sa xel daju woon ñu wàññi ko plan d'action nag nekkul na lépp mën koo réussir ci année bi waaye fa nga yem prochaine bànqaas bi tey maa yoroon culture fool nañ ma damaa war a passation de service maanaam bu ko moo ñëw moo tax mu xam eh, liggéey 2018 19 li ñu durusoon ci alxuraan fu mu yem mu mën a gën a def ay effort léegi nag sa plan d'action fa mu yemoon ñu mottalil ko kooku par exemple waa culture na ñun bëgg nañoo def ay conférence publique bëgg nañoo organiser sur les culturels et cetera waa social na ñun bëgg nañoo euh, euh, def sensibilisation woo ay médecins ñu waxtaan na ñun def nangam bëgg nañoo bay bëgg nañu wut aw jiwu bay waa ad waa waa administration daal ñum bëgg nañu organiser benn don de sang waa culture wax na bëgg nañu sorna way dawlu waa organisateur yi ñoom it daal di ñëw ne bëgg nañu ay ay formation ci wàllu toog ak waañ ak ku def baas ak xeet yooyu les commissions yëpp nag bu ñëwee def seen plan d'action président bi déglu yëpp kenn ku nekk nag la nga ci wax mooy xool li ci yenu maan ak li daayira man mu defal la ko leen li def li nga li nga xam sa xol li nga xam bokk na sa liggéey te sa xel daju ko wala sa xam-xam yëgu fa ñu leeral la ko léegi nag suñu paree ñu dem defi loola nag léegi nag secrétaire général bi nga xam si moom mooy secrétaire général fédération wala bu daayira bi réunion bu mu mën a teew la cinq bu mu mën a teew kàddu ya fa jib lañ fa tënk la fa judd ci xaalis war na ko bind lañ fa jaay ci carte membre war na ko bind su année bi jeexee mu mën a def rapport ñoom seen rapport yëpp bu pare ñu jébbal ko secrétaire général fédération bi mu def rapport boo xam ne ci lay leer nañ ñu xam ne Sifadoor seen fédération bi jaay nañ plus de deux 204 204 yi ni lañ ko jaayé touba kan mo ci jaay 204 mo ci jaay euh quatre-vingts cartes Dakar jaay na soixante-dix cartes Diourbel jaay na vingt cartes euh, Kaolack jaay na vingt cartes Njaareem jaay euh, kii Thiès jaay na vingt cartes nga xam ne dama koo tënk noonu rek bu ko defee nag mu ne it Touba cotisé na nangam ci xaalis Dakar cotisé na nangam ci xaalis Thiès cotisé na Diourbel cotisé na di ko bañ ko boolee kat am nañ kat un million yoo xam ci teg un million yi kat bi mu tegee six cent mille quatre cent mille trois cent